jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi euh, tey jii nag euh, génn naa fi nga xam ne rek moom moo di euh, Ndakaaru tey jii ak ji ba fa nga xam ne rek moom moo di Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport rawatina quartier bii ma nekk di quartier Aynina Fall ana kan wala ñan laa seeti en tout cas lu kenn mën ñaar a ko dàq ñett du bëre waaye ñaar moo mën kenn rawatina ñaar ñoo xam ne nag la borom bi subhanahu wa taala moo leen boole ñuy sëy wax dëgg yàlla waaye boolewaat leen itam kenn ku nekk mu amul mu def si ñoom ay ndaanaan lañu kullu fadrin Mourat Sarr la àndal di cameraman bi nga xam ne moo xarañ lool fare fii ci Walf Thiès mu yombalal ñu ko nag bu baax a baax mbokk yi kon xam naa jommeeti ngeen ci ñun kan laay seeti wala ñan laay seeti sama jali bu ñuul laay seet wàññi ko yaa ngi gaañ ah, ma ku may sama jali bu ñuul bi laay seet wàññi yaa ngi gaañ da ah. <laughs> salaamaaleykum maa ngi ziar de ah oh mama Fatou ngi murat ah, oh mama Fatou ngi nii mama ah, Fatou ngi nii sama xarit baa ngi nii sama soppe baa ngi nii sama jamaano ara ngi nii jamaa wal fajri wal ngi nii waaw yàgg laa bëgg rek nag yàgg laa bëgg rek nag yàgg laa yow ndekete yow nii ngay def ngay ñëw ba Thiès di bett doomu aadama yi di leen ah est loo xalaatoon la yaay booy gannaaw ba ma la nuyoo parce que Ndakaaru rek nga daan toog di seetaan télé bi gis ma koy uh, ànd ak artistes yi faree foofee ci Dakar. loo liggéey nag ci biir télé bi ñu ngi koy seetaan maag Jali ñun dañ laa fan waaw moo tax tey jii bi nga ñëwee bett ñi ñun ci lii la ñuy dox nii rek lañuy def at mu ne waaw. xam nga ne ñii eh, dañoo eh, muraat ay ndaanaan lañu kulu fadrin kenn dootu weranteeti seen ndaanaan wax dëgg nag yàlla mbir yi ba tey atum 1993 eh, teg nañ ci 4 ba juróomeeli album bi nga xam ne génn nañ ko tout récemment le 8 mars waaye ñu toog nag 8 ans kenn gisu leen kenn déggu leen xamuñu ana sala la ñu nekk léegi nag dikkaat nañu ni ki le 8 mars bi ñu génn a génn seen album bu bi nga xam ne rek moom la ñu dippee daje bi kon ñoom ñaar ñu dajewaat faatu mbay jali bu ñuul waa déggal li waa <laughs> xanaa kontaan ci yow. dèjà bilaay kontaan. déedéet. yaa baax du weesu mbaa. baax nekkoon nga jàll mbaax wal ma caabakaay sa yaay ja liggéey na sunu ma way ku baax waaw waaw sunu jamano baabulo ma way ku baax saba cam cangi bi waaw waaw waaw waaw mbaax ti lambi na aywa labba biram binta labba coro mbay ak ma mi ci saalum sama jali bu ñuul baa ngi nii jàbba yaayam baaya san la baayam e way caba kontaan naam oh. ndax du weesu nga jàll mbaax wal ma maadam jaay sa yaay ja liggéey oh. na ma jëm ja bay daraw Moussa li ko du seen bay daraw Fatoumata Mbay fanta ba toor njël bëgg a tuut sa gànnaar lu guddi li bëgg ñu ne ya dañoo bëri lool saa yu mere jaay na jaam yaayu Moodu Kara yaayu jaajami téelére te njëriñ lay jiw sama jàpp yaayu buur sama yaay damaare fii mooy kër gu mag gi Fatima ngi nii Ablaye ngi nii Fatou Mbaye mooy seen ay waay bokk ak Ablaye ndey baay Xaadim yow laay woo waay Fatim sama doom jaa ngi nii ndee suy naa la way naa la bakk naa la ndey asu doomu baayu kara jàmm jàngit ni wal ni wal ma ca bakkaay sa yaay ja liggéey na tabarkalla ndey saana ndey waay ni baax du weesu mbaaxa nekkoon nga jàll mbaax wal ma papito waalo waalo bangoga saje yàgg nag jar <laughs> sab yàpp sabu njab yàggee léegi nga war a feeñ cooli cooli cooli cooli cooli cooli sama jarbaat ngi ah, yëqal na ne lee ci ma. waaw waaw. gi lambi na. Cheikh Ndiaye yow laay woo. mbokk yaayu si daata. Mariane la ñuy wooyee seen yaay. borom yaay yu baax yaa ngi. bilaay si daat way naa la ay da caam yow laay woo. ku ne yaasin penda caam njameng maar biray kalaay yaa ngi ni sama doom jànge doomu yaayu papito sa yaay ja liggéey na oh la la tabarkalla tabarkalla Mourad lii la ñu xam si ñoom lii la ñu xam si ñoom lii la ñu xamal lii la ñu yàgg miinal lii la ñu yàgg di ñu ko defal di ñu yàgg di ñu bégal moo tax bu ñu toogee diir gisuñu leen wala dégguñu leen rek dañuy dal di jaaxle waaye bésu tabaski bii di bës bu màgg di ay dal kabir ma ne wax dëgg nag yàlla faaw ma ak ji ba ceeskaay benn dëkk ñaari gaar fekk si ndaanaan yi xool naka la ñuy doxalee si bésu tabaski bi euh, Mourad Sarr waaye mais gis naa ni nga xam ne noonu lañ ma euh, nañu nuyoowee tabarkal la ah Jali mais Jali suba ba tey lan nga nekkoon si langa nga doxalee tabaski. ah caba ba seen taabal waaye ngéwal neex na waaw suba ba léegi ñoom ci préparation lakk beeg waaw ñoo ngi lakk bi bagaas yi waaw maa rey fees waaw. gis nga ko ah, mën nga fees. waaw fees mais père ah. ma dóor xar mi nii daal di fees gars yi jàppale yooyu non dama koy defar ba mu mol. xam nga bu yee tam bu feesee lii toj yaa yëpp nii teg foog ñu suppal ko bopp bee. waaw. Ah, kon daal léegi jaagal jaagal bee nekk nii yow yow maman moom gannaaw ba mu rey xar ba fees ak yooyu bu pare yow lay jox yow tàmbali nga lakk yi wala lakk goo. ñun lakk nañ dañ koy muusal ba pare ba mu muus ñu lakk ko nag soo ko saaf mm-hmm. ci loolu lañ ne nii ma nga ne kàddu gaa nga ne. xanaa yow fii ngay fii ngay tabaskee. moo tax ma ñëw seet si leen. jeex na kon xanaa kontaan ngeen. kontaan nañu ko daggati waaw yéen maa ko daggate fëru yeeg yéen ñu ngi nii di tege. Mourad kër géwël neex na kat. waaw def na mais Mourad kër géwël neex na xoolal. déedéet kay ah am na si yeeg yooyu. ay man damaa bari kees sax. loolu yëpp nga ni. ah. daal eh, mun naa la may appel léegi naa la daggal naa la tuuti. ndeysaan aha ndey wax nga dëgg ndeysaan d'accord. nii rek non gis naa ni ngeen defee ambiance bi ngéwal gi tabaski biir ngéwal daal dara du yomb waaw kër gu mag mooy suñu cosaan macha allah macha allah jërëjëf léegi nag ah ki mooy Kara ndoom si ah, ah Mourad ki ki seen doom la mooy Kara mais Kara nuyu naa la naa la bàyyi nañ Nekra yow yaa ngi si way wala nekkoo si way bi. non man néew ma ko ba nekk sa yaay di ndaanaan sa papa di ndaanaan. ah ñu ngi jéem daal. wala yow ndaanaan nga si beneen fànn. waaw waaw waaw ñun daal ñu ngi nii rek. si ban fànn. ñun daal ñu ngi si lépp rek. booy rek lay def doomu ñay moom booy rek lay def. li dëgg la bëgg dëgg la li dëgg la waaw sama yaay ji laay wayal yaay booy ma néew na la ajaratu ngoone ñang la ñuy woowee sa yaay jaba yaay buur la ñuy woowee sa yaay baay boo yàq jamba sama baay ji ma néew na la duma la naxe mbëggeel sama yaay ji duma la fontoog mbëggeel xam nga ni man yow laa loof yaaya booya man de wolu naa la xale ah. yi jéem rek <laughs> ah Mourad xanaa mira ah. <laughs> exclusivité ne am nañ lu rëy nag mais Kara Kara kon yow itam yaa ngi si aar bi ñu jéem rek ñu mënta ñàkk te mënta ñàkk faaw mu am ala kulli haal yaay mënta nekk ndaanaan sa di ndaanaan même boo nekkoon si leneen itam nekk fa ndaanaan itam du tee nga am leen loo xam ne di nga ko si for waaye li bu ñu la itam nga yëkkati xam nañu ndaanaan nga parce que doomu ndaanaan yi fii Ndakaaru ñu ngi wane seen bopp yow nag kon yaa ngi si yoon wi ah. man daal maa ngi sama ginnaaw papa daal <laughs> nañoo bàyyi xel baax na jeex na kon ñu lay xaara ni dëgg la dëgg la kontaan naa <laughs> ndeysaan ndeysaan euh, sama doom la mais sama xarit la oh. waaw parce que man bërilewu ma benn rek laa am ñaar la woon kenn ki yàlla weddi kii nag moom laa dese muy suma doom waaye mais doom joo xam ne doom ju baax julli gii rek dafa ñëw ne ma papa gis nga gis nga xar mi ma yeewal waaw def affaire bu baax waaw jàpp ci ba mu baax mhm. waaw ñëw sagal ma itam biir yu moroom yëpp amul lu may soxla su ma wootee téléphone rek mu defar ko mbaa mu defar ko yaayam kon nag loolu jàmm ju bëri la yàlla na ko yàlla yokk yàlla jàppale ko jàppale bépp jullit ak bépp nit ku baax mais nag am naa samay nit ñu xarit nag yu baax yoo xam ne dañ ma bëggal seen bopp tey jal yi ak Fatou Mbaye fu ñu tolluwaat yéen àdduna du ñu déggaat ñooñu ñooñu jàppale ñooñu jàppale jël seen alal millions yu bëri financé ko ci ñun mu am sama benn jigéen bi nekk fi ñuy wax Madeleine Mabousso Diagne mhm. moom laa jëkk a woy single mu may ma millions yu bëri ma jóge foofu samay xarit nag ñi nga xam ne ñoom la ma yàlla booleel ma mhm. àndandoo ñoom mhm. ñoom Fatou Gueye ñoom ñëpp sama ñi tu baax ñu may dimbale mais moom am samay xaritu bopp yoo xam ne dañuy ñëw ci man di ma fréquenté waaye keroog ba ma taxawee soxla dañoo wàññi millions yu bëree bëree bëri def ko ci sama album bi parce que ñu li ñu leen nammee woon ñoom itam noonu lañu leen nammee ñu gis ne daal wax dëgg ah, leen dégg waaw que nag faaw ñuy dégg leen ndax da ngeen yàgg da nga ñu yàgg bégal xam nga mooy jali jali mooy Fatou Mbaye nga ma ndaa ma ma xale bi le yaay mi sal ni ma من أومام سلمنيما فليو جالو جيري كباكي نغبق لول تساقل بي وسنيون دوكو بوكا كنين دادي جيجين بقل وجو من خمنا جلي waaye góor bëggul jamaale. ay waay ki la bëgg jali du la wutal jamaale. yee ana jamaale be. wante gis naa ku ma bëgg wutal ma jamaale. <laughs> jël sama xarit def ko jamaale. waaw kooku du xarit. kooku jamaale la. <laughs> yee. yemaale laa. kii la El Hadj Sow lañ koy woowe. Oh. sama doomi ndey la sama xarit la. secrétaire national oh. intervenir lépp lu di coono ngir jàmmi Sénégal. kii de sama xarit la. Eh, sama waa jànge. waaw waaw Demba Ndiri Jor Ndooy. waaw bayu papa yow lay ay waay mbokk ndeyam ndagga jaañ mayel mi ci torok mayel mi ci yoof mayel yaasin mi ci aldraame atund ngal maami salminima ah. sama jale man de kontaan naa loo ma may ma may ko mbere am joxal mbere mani lu la mayati joxal mbere yow joxal mbere bakalin ling sooma bakaw biri kaama harjata yeerin ko jumfulu kamarange eh. weli ngara loola welani ngara loola waaw waaw mbere am joxal mbere ay waay ma job fu ma jaar man dal joobeela fi ma jaar ak siise su ma kon na me nettali ren xam naa ne fi lay noor ba dee fi mbiri daan na ma toogal mu doy mooy seet su ma ko teeraan mu ba affaire la su ma ko santa mu doy ani mooy juubee sama diggante ke mbiri xale ma fa jaar booba xamaguma la tariyeex si maandu na ci kooku waaw dadikaay dadi kaay eh ana caaba dadi kaay dadi kaay eh, waayu mbokkum yaayum si dat njaay sama téer baa nge ay waay man leen la ñuy sa yaay si daat waaw yaay ju ji doomu yaayu Adja yow laay woo chéri mama yow laay woo aywaay góoru mimi yow laay woo man de gor su baaxee danga koy joobe ni man dama lay gor su baaxee danga koy joo aywaay kon wiiri wiiri a wiiri jaari ndaari way ma wuy sama doomi ndey way naa sama xarit bi Lamine Gassama Gassama jaabi Séday sata yow laay doxantoo wéq ndono la ci mbaam gaynde fadla ba Lamine kaay Lamine kaay ewaay ana Lamine chéri ay sata foog ma way fi Lamine. Fatim yal na nga fekkee sa njëriñu ñu jàppale si sa borom ceeb yu neex yaa ngi nii. yaayu xaadima ngi nii kii ya boole ñëpp uuf. yaayu Adama yow lay yaayu Amet yow lay woo. ay waay chéri Ablaye Seck borom ceeb bu weex bi <laughs> ma ngay miraas kii mbana murat naa la may damitu pomme damitu banana damitu avocat ak toq jus ak mouchoir ah, baax na ak ak brochette wala <laughs> accord mais mais mais maman Fatou ma man loolu man loolu a xam yaay booy kii ki li ma li ma bëgg a xam mooy borom euh, tissu yeeg ak ki ñëwoon léegi di di jokkalante ak yow ku mu doon. moom mooy mooy soxna sama. jëkkër ji taxaw bokk ak Jalle ndey ak baay Ablaye. ah kon si la. waaw dañuy fal di wax ne wujju peccor ga mais wujj. kon d' waaye luy wecc wujju peccor ga nag moom doom la. waaw man ayewul ak man bale ayew man ak raxas duus ayewul ak man ceebu ceeb day togg ba mu yegg mu teg ci dëkk bi. ci digg kër gi ñëpp ñëw dëkk bi yëpp nag nijaay la leen di wooyee ñu góor ñi. ñu jigéen ñi mu leen di wooyee yumpaañ. ndax kii jërëjëf yaay booy lu am na solo euh, père euh, père euh, gis nañu seen woy woowu dafa dëgg yàlla dafa frappé ñëpp dafa génn ñëpp ne waaw tey bu ñu toogaatee ba atum 2018 nga dégg animatrice bu mag lee di artiste bu mag également di Penda Guissé moom Pendo ñëw si wayam am lu mu si jël yéen loolu naka la leen def ba ngeen ko déggee. Euh, Pendo nag euh, yalla dafa dogal man ak euh, Pendo dañoo jëkk a bokk benn. foire international ah. foire internationale bi ñu ko bëgg waa Sédiko ñëw ñu jëloon. jee asu sare boobu muy woy nekk sama jigéen nekk sama xarit jël ma ak sama groupe bi yëpp ñu nekk foire ba mu jeex Pendo nag nekk sama jigéen. bi muy préparé pour woo Dia Soussare. ñun sax ñoo ngi ak albumu Dia Soussare boo xam ne pareeguñ. waaw waaye biñ koy biñ koy préparé pareeguñ Pendo woo ma ne ma dafa am morceau bu mu doon woy dafa bëgg a woy ci biir morceau bi. sa sama biir morceau. ah yëgal na leen ko. yëgal na ma ko. ma ne ko ki ngay woy. sama xarit la yow mi koy woy sama xarit nga. te man seen père laa yéen ñëpp. li may woy pour yéen la. kon laata mu koy amal la la ñëw yëgal leen. waaye ba mu amalee ko yëf yi ba noppi. waaw ana naka ngeen déggee woy wi. waaw bi ñu ma bi ko amalee pare tam man kontaan naa ci tax ma kontaan ci mooy dégg naa. Euh, euh, yàqul woy wi. ba pare def na ci. def na ci ay bagages yoo xam ne man gën naa ci kontaan. waaw neex na ma trop waaw. jërëjëf ñu ne ko waaw dëgg la yal na yàlla. Pendo moom kontaan nañ ci moom. jërëjëf yaay booy wax dëgg yëg yàlla li ah, ngeen mujj a génn. mais mais mais mais huit ngeen toog dégg ñu leen gis ñu leen. waaye nag kii mooy daje léegi kon ñëw ngeen na fi ne nii. kii mooy daje bi daje bi ci boom dama bëgg yow Thiaba nga def ci émission spéciale ñu def spéciale super Jali ak Fatou Mbaye. si ànd ak El Hadj Papa Alioune Mbaye rek ñu def ko ëttu ndaanaan yi. waaw ëttu ndaanaan yi ma indi batterie yeeg xalam yeeg sabar yeeg yëpp ñu xawaare spécial. kii nag moom laa bëgg nga di ko tegal mais kontaan euh, ma kontaan naa itam si waa kër gi sama xarit bi no tuddati sax sama jëkkër waa nee na sama jëkkër ndey astu ah bajaan saakoro waali tonto walaay nuyu naa la tàndee xat ak borom teraate ah. borom tusi ba nu mu tudd wujju peccor mu tudd waaw Fatim Taal Fatim ñoom ñëpp waa kër gi ak karaa suñu rakk ji waa d'accord léegi yaay euh, yaay booy père kontaan nañu baax a baax si ni nga xam ne noonee ngeen ñu dalee seen kër wax dëgg nag yàlla dañ ñaan toog Ndakaaru rek di seet suñu mbokki artistes yi mais bi la yoon ma gis ne daal war naa mën a ñëw Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport seet si fi yu mel ni yéen wax dëgg nag yàlla euh, gannaaw dañ leen namoon te euh, marché bi ñu weesu rek yem ak journée bi ñu jël jagleel ko jigéen ñi journée mondiale de la mm. Thursday di sama anniversaire ngeen génn si rajo bi man def ma lu dul kontaan ci mooy nuyu bu baax nag Modou moom ingénieur boobu de son boobu man waaw Modou Modou waaw waaw jàpp na si liggéey bi moom itam suma xarit la jàpp na ci trop studio Laye Diagne moom du bi ma bi ma jàppale ba pare dafa gëstuwaat ñëw encore topp si ñu di ñu jàppale ci lépp mhm. parce que studio boobu la ñu enregistré mais fii ci kër gi tam fi la ñu yoree groupe boo xam ne mooy lyrique traditionnel ngéwal gëstu fii waaw batterie yaa ngi ci biir. ah bon sabar yaa ngi ci biir. Ah, kon Mourad dina ma si may si PC rek. waaw euh, yaa ngi fi sabar yaa ngi fi guitare yaa ngi fi. d'accord yaa ngi ci biir. léegi jëlal PC. ñoo jëlal rek. après nga xool xam ne ñun ñoo ngi ci euh, kawam. jeex na jërëjëf Jali bu ñuul mbokk kon lii la indiloon euh, fii si Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar quartier ay Nina Fall fekk si woon fi ndaanaan yu mag yi xool ana naka la doxalee kon si bésu tabaski bi gis naa kii concombre yeeg kaani salade yeeg tomate lépp ci biir kara ñëw décoré table bi yeeg jëm ci fruits yeeg boisson yi ak euh, ñi nga xam ne ñoom lañ fekk ci euh, waaye itam may gërëm bu baax sama borom kër moom euh, daal di ndax di dawal compréhension rek te xam ne moom laa man tam daa ma war a jaagar jaagar ni ko Maman Fatou Mbaye defee taajal ko waaye bii la yow mënuma sa liggéey duma la ko yàqal la koy yombalal kon dama def du ma def lu du ko gërëm ay rakkam nag ba bàyyi ñu ko uh, ginnaaw benn yoon ñoom itam jàppal lañ si ndax ñu ngi naa ma demal ñoo lay defal li nangam nangam uh, Mimi Ndiaye maa ngi koy gërëm bu baax Mimi Ndiaye di kontaan si moom di kontaan si Adja Ndiaye si daat ña maman Aïda ak ñam xadeek toute la famille ku lim doo juumee fam ñooy fàtte ak ndey kumba kontaan naa waaye Mourar Sarr cant ak ngërëm la parce que mënoon nga nekk Walf Thiès di amal liggéey bu am solo ndax ku xam ne bés tabaski dafa xat liggéey bu takku mi ngi lay xaar si Walf Thiès waaye ma la wooye téléphone ne la kar damaa bëgg nga yombalal ma liggéey bi dama bëgg ñëw tax xam nga maa ñëw rek yor wax noonu rek que faaw nga am caméra boo xam ne mooy génn li ngay wax waaye itam jox la micro kon dama du ma def loolu gërëm la jëfal la di la ñaanal yàlla barkel sa liggéey bu baax a baax wax dëgg yàlla kontaan naa trop sa njaboot itam nam nañ la du ma la téye dégg Mourad jërëjëf merci beaucoup jërëjëf mbokk yi kon mi ngi noonu loolee lañ leen jëloon foofee nga xam ne moo di euh, Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport quartier ay niina Fall fekk woon fa ndaanaan yooyu lee di nga xam ne moo di Fatou mbay ak Jali bu ñuul dañ leen namoon gis nga nuñ jaaga jaaga tabaski bi ñuy gërëm bu baax jaajëfal ni ma ko waxee noonu kooku di euh, Mourad Sarr di cameraman bu mag monteur bu mag faree chez Walf Thiès comme ni ma ko waxee noonu la ñu ko yombalee liggéey bi wax dëgg nag yàlla mënoon nañu ko jafeel boobaa day metti suñu bëgg-bëgg du antu pend gise lii nga seetaan ni ana ban commentaire nga di si amal waaw damay kontaan bu baax a baax nag di gërëm euh, Jali ak Fatou Mbaye mhm. ndax Fatou Mbaye sama yaay la ñaari yoon ndax nag ajara yàlla na ko yàlla xare ajjana moom laa doon àndal sama papa Alpha bambaado ak Mamadou Guissé la doon àndal. Mhm. ci Pikine gu njëkk ga. Mhm. kon man defe na ne Jali sama papa la. Mhm. Fatou mbay sama yaay la. ba pare am nit ku baax ku ñu boole ak ñoom. muy jee asu sare. wax na ko mi ma woy ci woy wi muy séeri laay dem. borom Amérique. ndax en c'était en deux mille ak deux mille un ak deux mille deux ñu doon liggéeyee ci foire bi ñu nekkoon sunu yaay ñoom ñu nekk ci beneen équipe ñun ci beneen équipe. kon lii mu wax nii dëgg la te kon bala ngaa jël wayu jàmbur war ngaa woo nit ki mu wuyu la donte sama papa la mënoon naa ko jël sax te du si wax waaye wax day amaat suba est-ce que comprendre nga loolu moo tax ma woo ko wax ko ko ndax karaa su ma ko woowoon rek mën naa koo jël ndax déjà li ñu def nii yow da la bett daf ma bett franchement daf maa bett bu baax a baax ma leen di ñaanal bu baax di leen wax ne leen ñoom seen ay way ba santaan ni ñi duñ ko fàtte. Hmm. te heure bu nu yeewoo rek war nañ ci am mën a jàngat lu baree bari. Hmm. parce que nag ay ay ay mag lañu yoo xam ne li ñuy woy yëpp ci dëgg la ak fulla ak fayda. lu hmm. dëgg donc ñoom bañ dale woy ba tey seen way du xew yi. bi musta xew yi ci àdduna heure buñ ko tegloo da ngay dégg am na yeneen ak yeneen ay jalamba ay yooyu yëpp man wayu jali ak Fatou Mbaye moom laay doon fawee ci way loolu loolu laa doon fawee ci way jàmm jaa ngi nii bëri na luñ ñu koy woy sën dafa bëgg woy boobu suñuy commencé liggéey fenn rek mu ne def leen jàmm jaa ngi nii ndax li ñuy liggéey mu am jàmm. doo koy tuuti du dëgg doo ñu may tuuti si jàmm jaa ànd foo di la réew mi laaj réewum Sénégal du jàmm jaara ñaan jàmm jaa ngi nii teraanga ngi nii réewum Sénégal oo oh, jaara ñaan yow demal Gambia foofu jàmm lañ fay ñaan. nga ñëw ci Sénégal du jàmm ñu fi ñaan ànd foo di ree du lii la réew mi laaj réewum Sénégal kon jàmm jaara ñaan. donc ñoom dañ doon foowee seen ay way. ñoom ñoom kontaan nañu si buñ la déggaatee nga wayaat lii. voilà léegi nag nga gisee Ndakaaru gi ñu génn wutali Thiès kay. waaw loolu dafay rafet parce que nag li ma leen wax toujours rek ne leen liggéey dafa war a def déjà di ngay ngay ngay jël engagement. Mm-hmm. ndax lii jël engagement la lu toll ni jouru tabaski uh-huh. nga bàyyi say sa jëkkër say mbokki jëkkër du dëgg ngay dem ci àll bi di uh-huh. xool nit ñi nu ñuy dundee uh-huh. parce que lii dafa neex nga dem fekk ci kër kër gu yaatu ñëpp toog njaboot gépp toog nga fekk jali tey bu fekkoon Dakar la da fekk ngay seeti day sol trois pièces waaye moom mu wékk trois pièces am nga fekk mu def sous-vêtement donc modeste yi mënul weesu loolu dafa modeste donc dañ leen di wax ne leen des fois da leen génn nag di des euh, nu ñu koy waxee si Fallou Dieng si tubaab décentralisé <laughs> décentraliser mbir mi di dem ci àll bi di xool artistes yi ni ñuy dundee parce que comme nit ko nit ñi di dundee ñoom noonu lañ koy dundee te foofu sax mooy gën a neex ndax day yaatu dëkk ba ñëpp ñëw su añ yi jotee ku nekk day yekk bool andi ko rek mu naturel gis nga togguma benn taxaw rek waaw loolu loolu riis na yow da ngaa yow tamit bokkoo ci te yow yaa ko njëkk a def nag ah, nga am na loo xam ne tam il faut ñu leere ko fàllu ndeysaan Keba moo njëkk a def direct ñaan euh, moo ko njëkk a def te loolu tey bu ko télévision yëpp day def ma mérite moom mi la moom mi lay revenir donc ñu koy félicité ku yàgg sonn ci ndaanaan yi dëgg la di nit ku baax nit ku am reconnaissance mhm. nit koo xam ni fàttewul démb dëgg la fàttewul ñi mu xamoon démb dëgg la caba dafa reconnaissant mhm. euh, reconnaissant trop tey moom laa koy wax sànq ne ko danga def loo xam ni mhm. innovation la parce que booy seet tabaski jie ko Dakar sax booy seet amul doole. amul doole ndax Dakar ji foora nekk ñëpp ñëpp. ñibbi waa Kaolack gi Kaolack mm. waa Saint-Louis. te gars yi dañu gëm seen famille yi quoi. tu vois tey booy xool éléments yi nga xam ne orchestre balaa muy mën a dox. Mm-hmm. tey fii Dakar da nga dem ci région yi joué. moo tax idée bi ngeen am nii ba dem ci région yi. Mm-hmm. mais dara idée gënu ko. ba pare nga defee ko foo xam ne ñooñu noonu defe naa ne jee sare mm. tey xol ba neex na. ndax jee moom pour moom woykat yi ñun sax ñoo koy wax jeex yow bu noo bàyyi wax yu yàgg yi ngi dégg jeex ne leen moom ñi koy bégal jëleeg Fatou Mbaye rek ko mën a bégal. kon tey kontaan mais dégg nga damay wax neen mhm. euh, ñu bari dañu mhm. rek. Mhm. xewi bi c'est générationnel. ni ku nekk génération bi la bëgg. ñoo lay bëgg ba ilaa yow mi diini. loolu na ci nit ñi bàyyi xel. te ñoom seen voix yaa ngi resté intact. non mais baat mooy mujj a màgget si nit. baat ko romb xal mooy mujjee màgget ci nit moo tax fii dañuy gaaw suul ndaanaan mhm. naan ndaanaan bi jeexal na màgget naak yooyu te xol bu ñu fàtte ni am na ay ñoo xam ne ñoo ngi way ba léegi mhm. tey ku ci mel ni waykat bu mel moom bu mag boobu nga xam ne way na ba soixante-dix-sept ans mhm. ah? nga xool ku mel ni euh, euh, kii euh, kii Evora nu ma tudd waay kii euh, faat nañ tur euh, yu bari yu mag yoo xam ni tey dem nañ ba nekk mag fan yi la am ko gaañu ah, Amérique waaw gisoo waykat bu mag mag bi doon tey ñoom wit na son doon ko toppandoo vraiment donc kooku dëjëm donc moi je pense que cordon vocal que caba mooy mujjee màgget ci nit hmm. te ndaanaan yi aussi tamit nañu xam ni ah ñu war ñu leen war di bàyyi xel lañu hmm. di leen suuxat di leen seet comme ni ngeen def nii daf ciy baax tey seen ku leen xool nii tey dañu kontaan dañu kontaan surtout faatu mbay na ma koy nuyu moom sama fans la sama xarit la moo mook jëkkëram donc euh, faatu Mbaye nekk sama fans boo xam ne bi jour bi ñu ko présenter dafa jooy jooy keroog ndax mbëggeel ak cofeel bu mu am ci man maa ngi koy ñaanal yàlla la ko yàlla may gudd fan wér gu yaram et puis yàlla teg seen njabootam gi nga xam ne moom la ñu dese yàlla loxo kara yàlla may ko gudd fan ak wér wallaay waaw vraiment jërëjëf jërëjëf Fallou Dieng yaa ñàkk ñaan Penda Guissé Penda kontaan nga daal Serigne la defal man kontaan naa bu baax a baax te xam naa ni képp koo xam ne bëgg nga ma kontaan nga surtout ji asu sare mi nekk Amérique parce que di ngeen ko defal nag loo xam ne tey ji mus munul ñëw Amérique te waxul kaa leen ni organiser benn affaire mais jëleeg Fatou Mbaye la ñuy woo oh. moom toujours mariage am ñoom ñoo ko way mu liggéey ak ñoom bëgg leen te yàlla tax moo tax ma li ñaan ñoom tam mm-hmm. woy woowu ñoo xam ne moom lañ koy woyal ñoom jee asu nan ci gaaw lu mu gën a gaawee ndax la ma nga Amérique nag mm. te ñàkkul jom benn yoon barke Alaaji Maalik ku mu bokkal dimbali na la mm. jee mooy nit koo xam ne dafa ne ma même boo ma woyul woon mm-hmm. boo ma ne carrément damay woy ma dimbali la barki démba xaw ma démba dafa ne envoyé vocal ne ma bu la neexee suba suba suba mm-hmm. woowal borom studio bi nga duggaat lu mu laaj ma fay ko ndax sama xol bi dafa voilà ni morceau bi defee ñëpp ni waaw un million et quelques de la xaaral ma xool léegi la ma ko Papis ñaa envoyé. Eh, dëgg la ah, c'est pas donné euh, euh, da lay topp yow da nga yàgg nekk ndaanaan. Mhm. dëgg la danga am ñaari facette. Mhm. yoo xam ne dama ko remarqué ci yow. Mhm. muy maanaam man yàgg naa la dégg ngay woy ndax xam naa ni ku mën a woy nga macha allah mais danga nga mun taas aussi. ñaar yooyu nga boole. donc euh, ñaari élément de valeur yooyu bu ko boo ko amee en tant que artiste doo artiste bu ndaw. loolu dina baax. incha allah un million. 17 987 vues loolu xam nga loolu loolu loolu loolu macha allah macha allah moom laa lay wax nii actuellement nii euh, bu kenn xeeb boppam. bu kenn xeeb parce que inter euh, gis nga réseaux sociaux bi ñuy wax. Mm-hmm. Mhm. yàlla def ci dafa am lu ci lu gaaw lu ci nekk loo xam ne ci artiste. am na njariñ artiste bu ko ci nànd. Mhm. ah di nga def sa promo sans pour autant nga sonn. Mm-hmm. et puis ñuy ñuy jël valeur yooyu di ko di ko mettre en valeur mhm. maanaam artiste bu ci nekk na nga ibbi sa compte. la sa compte YouTube. compte YouTube. ba tax na loo ci am tey. Mhm. un million de vues. Mhm. tey bu fekkee ni sa compte YouTube xaalis la. xaalis la c'est de l'argent. donc loo amati dawal dawal dugal fa. donc waaw loolu la nag tam ñu ngi gërëm tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo la ciy jàppale. xam nga mm. des fois c'est pas évident musoo génnee dara nga génnee ko mu mel noonu. Mm-hmm. donc dañuy wax ne clip bi la. ñii naan woy bi la naan kit noonu dama ci gërëm ñi nga xam ne ñoom laa ci àndal parce que na ci liggéey hmm. ah, que man damay déglu hmm. damay dem ne Papis duñ def li hmm? la ñuy xool de si <laughs> donc loolu yëpp mais mais xam nga yàlla dafay fay coono dëgg la musique bi bul jàpp ne tey nga ci dugg xam nga du ko ci tey mais ku yàgg gëm dara. coono ku ci yàgg. dëgg la faaw yàlla wàllu si la. dëgg la loolu dama bëgg nit ñi xam ko. nit am na ñoo xam tey dañ naan bëreet yàlla wan leen boppam. am ñoo xam ne dañ ciy nekk dix ans quinze ans. doog a doog yàlla doog a ñëw si ñoom. a ñëw si ñoom moo tax ku ci nekk boo boo gëmee li ngay def gëm ko rek. un jour yàlla dina ñëw. ba pare li nga wax ci réseaux sociaux yi tamit dëgg la peut am na ci côté buy yàq am na côté buy defar côté bi muy defar mooy positiver bi nii amoo sax envie dem ci télé wala rajo parce que léegi lépp ci euh, Facebook lañ koy defee mhm. ah nu mu tudd sax WhatsApp yi donc loolu la mhm. moo tax yéen animateurs yi aussi mhm. loolu loo leen mën a góor góorgóorlu rek mu gënal ñu parce que animateur dafa war di teg ñëpp xam nga des fois tam ça fait mal voilà mu bañ a am xàjjeeg seen parce que nag ki ki bëgg Fallou Dieng dee ko tegal Fallou Dieng mais ki bëgg tam beneen xale de ko tegal beneen xale parce que loolu mooy affaire bi doole ji amul yamuñu du doole yamul te ku jekku del baale mais nit bu sonnee ci studio mhm. fay musiciens yi ak ni mu méttee Fallou xam na li may wax bu baax da nga ciy dajeeg nag ku mel ne laay jaañ rek mu baax mbaa mbay ngom ñu dimbali la te yàlla tax mais studio dafa metti bu jaaree yoon nga fay ñoo ñëpp nga pare sa kaset kenn du ko teg rafetul dañuy teg ñëpp parce que ñëpp ko man du man sax maa tax ñuy wax parce que man damay gis xale yi dañu am problème boobu des fois da ngay dégg ñu ku ne kii animateur bii la mais ñii la faral mm. kii ne ñii la faral donc loolu nañ koy bàyyi di éviter mm-hmm. tuuti parce que nag ku yàlla teg ci moom loxo fii fii fii ku mën amul ku ñu dimbali moo fi am ak ku yàlla namm ci moom dara jàmbaar amul ku ñu jàppale rek moom moo am tabarkalla yaakaar naa ne leer na waaye yow de saison boobu marché yeeg salon de coiffure yi yëpp ñu ngi koy teg. maa ngi leen di gërëm bu baax parce que ñëpp ko bëgg dafa bu baax kon leen man tam mu ñëw. na ma de Fall dañoo dégg ñu mais loolu tamit nag de. Ah? yow da namoon nit ñi man ma namoon nit ñi nga toog seeru. problème bi problème bi gaar ñu ëlbati affaire bi ah. yow ku la wax ñun eh, yow yow loo ñu waxee namoon naan ñun ñoo la namoon. <laughs> waaw waaw wax jaa ci léegi dañ ko mujj bàyyi. namoon ngeen ay namante la. <laughs> <laughs> waaw fa loolu moo gën parce que man tamit ma ko ma ne laajaa allo laajaañ Pallou Dieng ñun ñaar ñii kan moo war a dem BSDA léegi wax namoon naa leen laajaañ day ree ba tey laajaañ. ma xoolal man namoon naa leen bi. Mm-hmm. dama ko tiitre mais du du du way bu ma way ci biir. la. non non ah, du way ah, ok album bi moo tudd namoon naa leen loolu mooy ci problème bi quoi mais loolu du problème sax. Mhm. yow tam artiste nga boo xam ne ñoo bokk ay vidéo daal. voilà ñoo bokk ay vidéo jërëjëf. <laughs> mais xarit la yàlla si yàlla teg ba si yàlla def barke. amiin amiin yàlla si yeneen topp yu gën a kaw. amiin amiin amiin donc xam nga ndaanaan bul xeeb sa bopp. dëgg la ndaanaan nga am nga vidéo macha allah. Mm. yàlla na yokku. amiin gënal góorgóorlu. amiin li gën a jafe mooy lii. Mm-hmm. Mm-hmm. ne bëreet. Mm-hmm. nit ñi nangul la. dëgg la sas nañ la nag. dëgg la sas bi mooy

lépp loo xam ni ñu rafet rek am nekk ci ginnaaw loo xam boo ko gënee buux macha allah day gën a dem ci kanam quoi. tabarkalla merci beaucoup Cheikh ñu jëlwaat di gërëmaat Fatou Mbaye ak Jale bu ñuul ak kooku nga xam ne moo di Mourad Sarr solol naa ko lool si liggéey bu am solo bi euh, tourné ba pare monté la ko war la ko envoyé nga toog di xaar élément vraiment loolu man euh, ñu bàyyi seen yitte yëpp man delluwaatuma loolu rek di ko gërëmaat moom Mourad Sarr delluwaat itam di jaajëfal waa waa Mimi Ndiaye duñu fàtte Adja la princesse ak ñoom Khadik ñoom Nani ma nga fa Nani borom saint di du Sénégal yaay mbay itam suñu doom ma nga fa euh, Cheikh ñun daal ba fàtte ñu kenn waa ay Nina Fall yëpp ñu ngi leen ñu nuyu di kontaan ci ñoom dat di ci la bokk Penda ñu bàyyi la nga joxe ndëwënal ay sa jugal Cheikh Tidiane Ndiaye nga kaleel ñu namoon naa la bu Penda gisee moom Pendo mag ci Demba gisee mag ci Jibi gisee rakku Samba Samba gisee si la bokk nekk ci états kon euh, Cheikh Tidiane Ndiaye Isaaxa Diagne Naar Ousin Sall ñoo faree ci wàllu xarale gi des artistes de différentes générations de différents styles mais également de différents feelings ñoom lañ fi dalal ci plateau spécial à Tabaski bile ayca gise lool namoon naa leen danoo gëj a gise lool bi ma leen gisee xam nga ni kontaan naa safrayul mbaam téeméeri safrayul mbaam gan mbaam téeméeri gan mbaam mbaam du ca dee doomi mbaam du ca dee ndaw ak saa yi ko gisul jooy ki nga bëgg mu bëgg la woo ko whatsapp woo ko FaceTime Facebook la lay laaj ne amoore est-ce may xool ay bébé est-ce que yaa ngi may xool man mbëggeel dama gaañ man mbëggeel dama gaañ saat ne ko yaa ngi Twitter yëngal nga réew mi Penda. Penda gisee macha allah namoon naa bi moom neex na. WhatsApp beeg Twitter beeg lan. waaw bi ak bi. xew na si jamono waaw Instagram nag dinaa ko ci dugal xam naa beneen yoon. Mhm. Instagram incha allah. di Fallou seetaan nga ko sànq Google. waaw WhatsApp. mais kii lu mu Penda mbir yi ñoo tombé. dëgg la. Jole tam am na lu mu waxoon. waaw <laughs> sinap kooku sinap. kooku mbir yi mbir yi mais neex na macha allah. neex na gis nga euh, war a dem. Mhm. lu dëgg la. te gis naa ni moom nee na am na lu ko ci bett. dëgg la musique moo mel noonu. dëgg la. Euh, xool la ci yàllay fay. dëgg la ak coono. Mhm. dëgg la tey da def sa album yow morceau biñ nga ciy gën a bëgg. Mhm. boobu nit ñi fee lañ koy teg. dëgg la ñooy xool bi leen neex. mais tombé ma waral ay gaaf nag nit ñi da nga génne affaire mu neex leen. dëgg la munoo ci dara. dëgg la munoo ci dara donc loolu mooy loolu mooy art grande voix quoi macha allah. dëgg la mu am tamit dafa assez mm-hmm. forcé wul dara. Mm-hmm. dëgg la wul voix bi. Mm-hmm. maanaam naturellement lay woyee. dëgg la te loolu mooy charme morceau bi. dëgg la merci beaucoup ba pare nag mu am nag caaj. dëgg la caaj waaw <laughs> allah. <laughs> waaw yàlla may na la si daal. dëgg la daal pen dëgg ñu ngi lay ñaanal ci barke sëñ Fallou amin amin amin yal na la yàlla jàppale bu baax a baax amin amin amin Fallou moom tam nit ku baax la Fallou Fallou nit ku baax la dañ doon toog di waxtaan ci lu bari ñuy toog di waxtaan sama rakk la moom fenn ñu fay waxtaan ñuy waxtaan mais débaawum yëpp débaawu mu na jub xocc na rafet loolu rek lay wax Fallou daal li ma doon wax démb si gu démb Mbaye Dieye Faye rek laa lay wax mhm. yow ak Mbaye Dieye Faye ak Boubacar Diallo ah benn way wi ngeen am man moom jaaxa da macha allah laay wax yàlla na ko ñëpp am nag parce nag amu leen benn zéro faute lañ leen di waxal Sénégal ba mu daj Fallou jee Papa Mbaye Dieye Faye Boubacar Diallo ñetti ñooñu foo waxee rek dañuy wax ñii amuñu problème mosuñoo def dara du dëgg donc loolu dañ ciy ñaan ku du encouragé baaxuloo mm-hmm. Mm-hmm. ku dul ñaanal nit baaxuloo te ku gërëmul nit doo gërëm yàlla te nit ñi nañuy nañuy def yu baax waa nit ñi tey garabam may nit ñi tey posonam mm-hmm. nañuy def yu baax ndax àddina yàggul donc nit ñi la ngay jël yow di ko dëggal nit a nga koy jël di ko fowe te yàlla xam na ne woy wi daa war a ñëw rek mu nekk ci nit ñi mais lu ma doon fowe la man dama dama doon joué ay soirée man joué naa lu yàgg ci ay boîte fii Dakar maam Ngor Jasaaka boîte ba woon joué naa fa naa ay boîte yu bëri bëri bëri di ko feesal muy fees dell may am sama wërsëg di dugg sama kër di ko lekk te boobu li maa ngi liggéey télé te chaque vendredi dama doon joué ak chaque dimanche dama doon joué ak orchestre orchestre moo nekk sama waa ci kanam tuuti dinaa ko tàmbaliwaat peut damay génn mais su ma ñëwaatee incha allah dinaa ko tàmbaliwaat. jërëjëf si mbaax googu nga wax yow itam si ñooñu. li nga wax si ñoom rek man itam loolee laa gis si ñoom. Mbaye Dieye Faye bu super song ma orchestre. Mbaye Dieye Faye du wax du wax lu ñaaw ci nit. dëgg la Mbaye wax lu ñaaw ci nit musuma ku la. tam mooy wax musuma dégg mu wax lu ñaaw dañoo bokk yaay maman mm-hmm. Ndiobo Konte mooy yaayam sama maman Ndoye mooy yaayam suñu ñaari yaay la woon ci ko kooku baax la moom itam. dëgg la yan na yàlla barkeel seen i liggéey barkeel liggéey mbooloom julit kon ñun ñëpp ay ndaw lañu waaye war nañu topp seen i ay tànk dëgg la yow itam ku baax nga ku ñàkki ñaan nga ñu delluwaat di la gërëm di la jaajëfal ñu bàyyi la nga tàggatoo ak waaw maa ngi tàggatoo ñëpp di leen gërëm yow di gërëm Fallou Dieng di gërëm sama sëñ ciix di gërëm Caba ndax yow kenn du yow yow sama nitu démb nga yow man ak yow démb la du tay